fii ñi taxaw kenn mëntu fi woon doxantu guddi waxantuma la du bëccëg du guddi ndax lépp nekk ñax ay jaan golo yi looloo fi nekkoon mu nekk bu àll juróomi at ci gannaaw loolu la woon tey mu nekk symbole u bu réew mi nekk symbole bu émergence ci réew mi eh, am na ñuy wax sax ne eh, gis-gis bi ci jam ñaajo la yem mane ne déedéet gis-gis bi ci Jamla Jolla tàmbalee ndax tubaab yi biñ fi nekkee dëkk yi ñu tabax yépp ci booru géej la nekk di xool bitim réew di xool tugal lu ñu bay ci àll bi xëcc andi ba ci port yi export muy port bu Ndar pooru Dakar nga wàcc kawla Ziguinchor jëm suuf donc léegi réew mi yépp dañ koo tabax nit ñi dëkkee ci tafu ci géej gi di xool bitim réew président Macky Sall moo sancu dëkk boo xam ne ci biir suuf si la nekk mooy jam ñaajo nekkul ci amul port taful ci géej gi nekk ci biir di xool biir réew mi donc gis-gis bi fii la tàmbalee di xool di dugg ci biir réew mi